lan la ñu waxoon ni mën nañ ko baale man usmaan Sonko nee naa lañ ma def man mu jëm ci man kese lañ ma def man mu jëm ci man mën naa ko baale baale naa keneen koo xam ne keneen koo xam ne sa xol may na la nga mën a baale baaleel parce que baale day féexal xol baale day yokk nit du ko wàññi loolu la ñu waxoon ni ñun mën nañ ko baale waaye nag waaye nag waaye nag boo doxee ba ñu lay xeex ay at jël li ñu amoon ci mooy yëpp daalal ko sa kaw tiiñal la yàq sa liggéey dugg sa vie privée essayer tas sa kër toj say oto dóor la ay lacrymogène tëj la kaso loolu yëpp ñu def la ko ca jamono ji ngay ne opposition nga àndak muñ jiital yàlla ba yàlla jox la ndam jaarale ko ci Sénégalais yi xanaa kay ku am xel tuuti nga ne nag léegi naa teggi sama tànk waaye dafa mel ni suñu gars yi jàpp nañ ni mën nañu continuer di xëy di saaga di sosal di wax lu bon ci nit ñi ba pare toog tranquillement seen kër ma bëgg a leeral sénégalais yi lenn. ñun suñu responsabilité en tant que ñi yor nguur te président Bassirou Diomaye Faye jiitu ci mooy réew mi il faut ñu delloo ko fi mu ne woon